ñoo ngi sant yàlla ci xéewal yi nga xamante ne nii moom la defal ba ñu amaat ak yéen tey ab jotaay ngir eggale aaya yi nga xamante ne nii moom lañ tànn ci kaamil bi am yaakaar ni mooy defar kër yi te fi'lan moom moo koy defar bu fekkee pare nañ pour jël ko mooy defar koñ bi mooy defar barabu liggéeyukaay ya mooy defar diggante yi yépp daf fi am aaya yoo xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala jullit ñi la ko préparé la ñu commencé woon ko ak yéen te suuratul anaam suñu dars yi weesu yépp ñu nekkoon ak yéen ci suuratul furqaan tey insha allah ñu toxu ak yéen ci beneen saar muy suuratu shura saar wi nga xamante ne nii yàlla mu ngi ko tudde diisoo diisoo waxtaan sottante xalaat saar woowu insha allahu tabaraka wa tey fa la ñuy ñëw ak yéen ci saar woowu yàlla subhanahu wa taala dafa teggi wax daal di teg su ma waxee loolu bi maanaa olof li mu naan boo teggee dara dangay teg dara moom la yàlla subhanahu wa taala def naka la ko defee aaye yan la dinañ ko dëgtal ñu jàng ko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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون مكي يالا سبحانه وتعالى دفع وحتي آية يويو فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla nee na ak lu ngeen mën a am ci àdduna ak lu ngeen fi mënti am day jeex mbiru àdduna la day jeex day jeex te am na laneen lu ko gën muy ñaari mbir yoo xamante ne ni dafa daje ñu war cee bàyyi xel mbokk mbiri àdduna bànneexi àdduna ak lu mu mënti doon alal ak wér ay kër ami soxna ami doom ak lu mu mënti doon ñaari mbir yii def cee nekk bi ci njëkk mooy day jeex ñaareel ba am na yeneen yu ko gën yooyee ko gën moom la yàlla subhaanahu wa taala nag denc moo tax yàlla daan ne la ak loo mënti am fii ci àdduna la ma denc mooy li gën te mooy liy sax xayrun wa abqa yaakaar naa ni ku am am xel ñu taajal la ñaari oto ne la oto bii moom oto bu baax la amul benn problème waaye oto bii boo ci yéegee bala ngaa àgg sa kër mu fay baaxul booy tànn oto bu baax bi ngay tànn lépp lu lay lay tànnaloo fii ci àdduna mu am bu baax ak bu gën a baax su fekkee am nga am xel ba gën a baax ngay jën yàlla subhaanahu wa taala la nga xamante ne nii moom la denc yowmal qiyaam mooy li gën moom mooy li sax waaye nag nee na moo ngi ko préparé ñan lilladina amanu gaa yi gëm kon bu fekkee bëgg nga am ca la yàlla ci àjjana il faut da ngay gëm yàlla subhanahu wa taala wa ala rabbihim yatawakkaluun il faut da ngay wàkkirlu ci yàlla subhanahu wa taala il faut nga gëm yàlla il faut nga gëm li nga xamante ni nii moom mooy il faut nga wàkkirlu ci yàlla subhanahu wa taala muy ñaari mandarga yoo xamante ne nii moom la yàlla njëkkalim walla walladina yajtanibuuna kabaira al ithmi wal fawaxisha wa ida ma gadibu hum yaxfiruun yàlla nee na bokk na it ba tey ci ñi nga xamante ne nii préparel naa leen àjjana yooyu ñi nga xamante ne ni dañuy moytu bàkkaar yu mag yi walladina yajtanibuuna kabaira al ithmi ñii moytu bàkkaar yu mag yi nga am loo ci déggee ah yàlla nee na àjjana ko préparel gaa yi moytu bakkaar yu mag yi kon man na maa def bakkaar yu ndaw yi muy benn ñaareel bi yan ñooy bàkkaar yu mag yi ci tontu ci lu njëkk li yàlla waxul yàlla ubbiwul benn yoon benn bunt ni man ngaa def bàkkaar yu ndaw den bàkkaar yu ndaw mooy bàkkaar yi lay rëcc yi nga xamante ni def nga ko te tayoo ko yooyu la yàlla subhanahu wa taala wax ni dina la ko baal bu fekkee yaa ngi moytu bàkkaar yu mag yi dina ko jéggal beneen bi lan mooy bàkkaar yu mag yi pour ci tënk rek bàkkaar yu mag yi mooy bàkkaar yi nga xamante ne dafa am ay àtte dafa am ay xuduud lu mel ni ku rey nañ nañ la rey ku sàcc nañ dagg loxoom ku njaaloo nañ ko doo téeméeri yar ku génne kàddu tuuma tuumaal nit nañ ko caw quatre-vingts yar ku naan sàngara nañ ko caw quatre-vingts yar mbir yooyu nga xamante ne dafa am ay àtte yooyu lañ wax ni ñooy bàkkaar yu mag yi yooyu nag la yàlla subhanahu wa taala di wax ni képp ku koy moytu dina la jéggal li nga xamante ne nii moom mooy say bàkkaar ba tey it kadalika ngay moytu li nga xamante ne nii moom la ñuy wax alfawaxish alfawaxish mooy lépp lu ñaaw lépp loo xamante ne nii rafetul baaxul donte que borom xam-xam yu bari ñu ngi koy firee as zina di njaaloo képp ku ko moytu képp ku fexe ba doo ca tàbbi yàlla subhanahu wa taala préparé na li nga xamanteni ni mom modi aljana wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. allah allahu akbar yalla subhanahu wa taala neena bokku na ci ñima ma préparé aljana ño xamanteni ni say ñu méré dañuy tok dal dari di baale bu ñu méré dañuy balé xolal xolal ay alquran yi yalla subhanahu wa taala di di di jangalé ben way dañ ñuko musuñu la dégg nga ak seen wa kër mu daan ni waaw parce que saa yi ma meree damay baale waaw ida qadaxuu li naara xarbin bi zandihim qadaxtu lahum fi kulli makrumatin zanda waaw allahu akbar nee na daal saa yu ma tooñee ba ma mer damay dal daal di baale kon mbokk yi ndekete bokk na ci yàlla subhanahu wa taala di préparel waa ajjana bokk na ci ñi nga xamante ne nii bu yawmal qiyaamee yàlla subhanahu wa taala daf leen di dugal ajjana ñi nga xamante nii bu ñu meree dañuy baale te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiis nee na bu yowmal qiyaam bu jaam yépp teewee yàlla day woo ana sama jaam yi ma war a fay ana ñi ma war a jéggal ana ñi ma war a dugal àjjana bi gayri xisaabin wala iqaab kenn du leen bugal kenn du leen réglé yonent bi nee na bu boobaa ñi daan baale kase ñoom ñooy mën a jug ida kaana yowmu alqiyaama naada munaadin min qibali alxaq ayna alladina ajruhum ala allah fala yaqumu illa man afa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu yowmal qiyamé dinañ wote pour am ñu dugg aljana kay ñu fay leen kay ñu duggal leen aljana mais ñi daan baale kase ñoom ñooy tabbi li nga xamanteni ni aljana ñoom ñuy jug wuyu ji kon mbokk yi yalla subhanahu wa taala aya yi nga xamanteni ni mom lañuy jangal fi mom moy ñuy baale ñuy jéggalé te moytu li nga xamanteni ni mom moy bakkar yu mag loolu buñ ko defee rek insha allahu tabaraka wa taala dinañ tàbbi ajjana di dund as saada fii ci àdduna ak alaxira yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar jéggal ñu suñu rëcc rëcc lépp loo xamante ne ay ndigal la ci alquran yàlla nañu yàlla wommat ci ndigal leen lépp luy ay tere yàlla nañ ko sori in uridu illa al islaha ma stataat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته